togal dogal mooy gaz ak pétrole duñ ko jël rek jaay ko déedéet dañ koy dugal ci facture ya nga xam ne moom la waa Sénégal di fay ci biir kër yi ak ci entreprise yi pour que kilowatt heure wàññeeku ba sénégalais bu doon fay facture nangam ñu wàññeeku ba mu oyof ci moom. loolu dafa war nekk engagement bu leer nañ boo xam ne amul xaar ba suba li ñuy gaz ak pétrole di indi duñ ko nëbb Sénégal yi waaye aussi duñ ko pasar pasare déedéet ma teg ci ne. bu ñu jëlee loolu maanaam dajale réconcilier kenn bañu jàpp ne dañ laa boddi ku nekk xam ne l'unité nationale du Sénégal moo ñu jig loolu waral kenn du ñu fekk ci yenn teesante yi parce que ku tal teesante c'est parce que da nga xoolul priorité ya nga xam ne moom la askanu Sénégal jiital